rëccu dina fekk jëf daal di wees ndax Ouleye Anta dina rëcc ci dil bi nga xamante ne moom la ko pend wurus di tegal mbiru termus bi dina leer te ci épisode 76 bi di ñëw lu bëri ci la nar a reere tey ji mu fës seeni la ci indil jàngat bu yaatu laataa loolu dama leen di tegal benn vidéo bu am solo jëlal sa temps seetaan ko mu jeex tàkk boo ko mënee partagé na ko def ndax vidéo bi njariñ dong la allahu akbar mm-hmm. dijë mm-hmm. baax ku yàlla nar a dimbali rek daal seetal lii mooy seetu ramlu képp ku ma seetal mhm. dama lay gis ba gis ab sarax seet bii mhm. amul benn sëriñ bu ma ko dàq senegal lu si ëpp sax mhm. dama naan ku ma si nar a seetal te gisuma la yàlla bu mu la seetal lii may ramlu mag ñi lii la naan seetee lépp luñ bëgg a xam si àdduna moo xam lu lu lu waaj ñëw la wala lu teew man mii boo gisee nit ñi di ma topp ci wàllum seet man seet bi moom laay seetee. tomb yi mooy wax nit ay jafe-jafeem mooy wax nit ki ay gàllankooram lépp loo xam na kaa dal. waat naa ko ko seet bi képp ko ma ko defal ma gis la. ba gën a soxla nag ma ki nga xamante si nii daa gëm ni seet amut ndax am na ñoo xamante si nii ay sénégalais lañ mais yoruñ jukkee sénégalais parce que ñoom dama bëgg def seen bopp ay tubaab mm. tubaab yi sax dañuy seetlu. tubaab bi mhm. sax dañuy seetlu di jë seet bi ni ma koy seetee mhm. naa xam sa tur mhm. xam sa tur yaay su ma ko jëlee am su ma tibbee suuf si wax li may wax ba teg ko ba tomb tomb yi may tomb naa xam kii lan may ay jafe-jafeem tey dinaa xam kii lan may ab saraxam ndax seet dafa war a génn sarax man seet raw lay seet man seet rawxaan lay seet